waaw xam nga Pastef Guédiawaye dafa am leen loo xam dañ ko teg mooy benn Pastef au niveau national nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu lien hiérarchique au niveau national dañoo bokk ci coalition. coalition bi tudd coalition Yewwi Askan Wi ku ne coalition nag mooy daa am looy jël am looy bàyyi parce que mbir mi saa nit ñu ay nit bu ñu àndee ay nawle dina am loo xam ne danga ko di nga ko féetewoo waaye am dina am loo xam tamit da nga koy bàyyi say nawle yi nga ko sékal ci loolu nag ci biir coalition bi. Nous ñu déposé candidature déposé pour députation Il y xam na ne déposé pour ne pas être trop trop trop trop gourmand on avait les meilleurs profils mais on avait de très bons profils pour dire qu'on avait les meilleurs profils à coalition pour l'intérêt de la coalition

ñun lu ñuy xool rek mooy ku paste pastef àndal te comme que ñun ci projet la ñuy liggéey instant yi képp ku pastef teg naan la yow lañ fi teg pour nga liggéey ci projet bi dañ lay teg te instant yi nag comme que pastef mu ngi ci yeewi et tant que pastef restera dans yeewi képp ku pastef jiital ci yeewi ñun dinañ la liggéey liggéey bu war parce que ñun ku pastef jiital ci yeewi rek dañuy gis ni Ousmane Ousmane Sonko moo fa taxaw pastef moo fa taxaw ku nekk si ñun da nga ciy gis sa bopp instant yi ak kuñ fi mënta tànn dañoo jàpp ne ñun la ñu tànn ndaxte ñu ngi si coalition bi Pastef la te inshallah lu ci war dañ koy liggéey lool yëpp nak lenn rek la parce que ñun wa Pastef on n'est pas omnibulé par les postes ñun lu ñuy xol moy suñu projet le projet politique que Pastef porte moy transformation société sénégalaise transformer Sénégal ba Sénégal buñu bëgg ba Sénégal buñu yaakar Sénégal bu tax ñuy xeex guddeeg bëccëg Sénégal bu tax ñuy ciy def suñu alal di ci def suñu doole di ci def suñu temps ba Sénégal bobu ñu mun ko jot Sénégal bobu nak ñun ñu né ñun ñoo koy porté obligatoire ñun japp nañ né on a le meilleur projet politique war nañ ko mëna porter porté tamit képp ko xamné ne ñëw nga and ak ñun bëgg liggé ci projet bobu nañ la ci gunge ndaxte on est très ouvert parce que japp nañ né nous sommes des patriotes mais on croit que aussi les patriotes peuvent être de plusieurs origines te incha allah rabbi campagne électorale bi di ñëw lépp lu Pastef defoon ci élection euh, locale yi benn pourquoi parce que la tête de liste nationale au niveau de Yewi, c'est notre leader c'est Ousmane Sonko